Euh, plateau bi wa sama mbok talibé la fi dalal de euh, François ma ngi lay ziar di la nuyu di la dalal bu baax baax merci beaucoup merci merci soxna jojo ma ngi lay delloo ziar ci wéru safar bi di ñaan yalla ñu téw ko at yu bare bare bare mu taxam mbacké yag fi lool te wér tay nak ñi ngi ñëw ma and ak sama doomu lay le chef de cabinet du ministre de l'artisanat man képp ku ma gis may dox rek jaru ngay laaj man luy doxal mbiri son excellence ci laa tay nak dañ ñëw représenter notre ami en commun euh, le conservateur foncier de Rufisque inspecteur d'IBC, oui mu nek un vrai bouclier du président de la République ku bëgg président lolu mo waral suñu téway bi parce que ñun képp ko xamante ni au-delà aspect social bi nga xamni ne mi ngi koy def nek numéro nit ku baax vraiment dafa bëgg président ba amu ci sago ñun tamit lolu lañ ko topé mu bëgg ñu aussi ñun tamit suñu relation àgg fo xamni amna fum commencé mais amul fu yam loolu mooy suñu teewaay fii nii tey. Mhm. en tout cas ñu remercier la bu baax euh, lolu leer na bu lolu wesso euh, François naka nga gisee tay ci guddigi waaw guddigi ni ma ko gisee dama euh di féliciter mon frère de valeur euh, Boukounta ak ñi nga xamni ñom la andal ci équipe bi dal parce que li ma wax sànq ci suuf rek nit mom fi jamono ji tollu bu nit né kaay leen ma ñu ànd dimbali euh, yenn new di dolay xol xool lan leen ma leen jàppale kooku je crois que ñepp wara juk tek ko loxo awma ma euh, diko féliciter di leen ci ñaawle un réussite totale bo xamanteni je pense que bi c'est une première année mais ma ngi ñaan mu am yeneen succès yo xam année yi di ñew ba ngeen def lo xamanteni non seulement day romb national mais day romb international lolou la leen di ñaanal ci barke safar gi ñu da jogé ni amé ya bi Franc doo du ma la bàyyeegum yow ku la gis xam ni luy jàppale son excellence rek ngay wër macha allah te ñun tamit bëgg nañ nga jàpp bu baax a baax euh, ci euh, ci guddi gi nga xamante ni ñun ñoo ko bu moo ko organiser sax du ma ne ñun mais mooy wax bu parce que moo ko initié moom moo nekk ci bopp bi organisation nag yombul te lii mu sumb nii tamit yombul ma bëgg nag euh, nga wax gars yi nañ ci jàpp bu baax rek ah mm-hmm. Mm-hmm. ko fekk si si liggéey bi mm-hmm. jàpp ci bu a baax su ko defee rek Thiès mën a jëm kanam àddina mën a jëm kanam incha allah incha allah loolu yow euh, ma sœur bul ci am benn jaaxle incha allah képp koo xamante ni dina ko war a jot yow xam nga ñun joti nañ suñ tànk joti fu ne te wax dëgg yàlla jàpp dañ ci jàpp bu baax a baax jàpp nañ ci te dinañ ci gën a jàpp lii mbiru son excellence la mbirul la déjà Ablaye la mbiru le PCA Mamadou Lamine Massaly la mbiru monsieur le ministre docteur Pape Amadou Ndiaye et cetera et cetera waaw su ma lumee rek damay ju mais mënul ñàkk ma ma jàllale ñooñu incha allah lii ñëpp dinañ ci jàpp.

vraiment di ci kontaan trop parce que quand même kon wax rek ñun nous tous nous devons nous devons être des porteurs de voix pour les enfants man damay wax ne man j'ai adopté presque beaucoup de daara yo xamante ci travail ma ngi liggé ak ñom motax suma su lu melni sama xol daf ci sét trop dafa nani sama frère wax na lépp euh, Djiby Sy lañ fi représenté notre ami et frère un homme de valeur ki nga xamante vraiment il a adopté Thiès dans son cœur déjà il porte Thiès dans son cœur def na fi ay liggéey bu rafet bi mu fi nekkee am fi ay nit ñu baax bi mu fi nekkee mm-hmm. euh, dem nekk conservateur foncier au niveau de Rufisque mais téewul ba léegi xelam nekk ci Thiès ndax bu ñu organiser mel nii mu jël une force somme jox ñu ni ñu dem leen ngeen représentement ma ngeen joxeel ma ko ci loolu ñuy def lu noble loolu def naa loolu euh, geste gënu ko rafet loolu moo tax ma ànd ci ak sama frère ñëw représenté le conservateur foncier du Rufisque de Rufisque

voilà lolu la amone luma ci sax. merci beaucoup ma ngi len di remercier bu baax di rafetlu ci ñi ngeen jaaree ci plateau bi di len wax euh, bonne soirée. ah na fête bi neex. ay <laughs> ayca ñu remercier len bu baax baax euh, di remercier mbollem ko xamanteni rek jaar nga fini euh, ci plateau bi di sante ñep di gërëm ñep ñi ngi koy yeggalee rek ci kaw inshallah légui légui lay doon. ñi ngi lay nuyu bu baax baax di la ziar mom nak mom moy borom Sarafina restaurant.

restauration wu événement bu tool nii nga xam ne des artistes de Thiès ñoo daje organiser ko muy loo xam ne jubluwuñ ci lu dul jàppale nit ñi biñ ma ko waxee tamit ma man ngeen koy defal parce que Thiès su indi di def rek man la koy defal en tout cas daal lii ma gis ni te initiative bu baax la na ci ñëpp xoy te xam ne ah pour Thiès dox il faut que nit ñi booloo. nit ñu doon benn mun a organiser yu mel nii mun a dimbali ñi nga xam ne tey jii war nañ leen dimbali en tout cas acte bi acte bu noble la tey jii waa Thiès war nañoo xam ne tey les artistes de Thiès wutuñu rek pour seen bopp dañuy wut pour dimbali askan wi boo xoolee depuis des mois ñu ngi cette belle soirée là ñu ngi koy organiser di ci def liñ ci war a def di ko jàllale ci média yi di ko won Sénégalais yi pour ñu xam ne Thiès dëkku culture la d'abord mais dëkku liggéeykat la. Thiès moom foo xam xam ne dëkku liggéeykat la dëkku culture la en tout cas tay jii man kontaan naa trop en tant que DG bu Sarafina bi nga xam dama bokku ci mbiri comme parrain mais wallahi tay kontaan naa trop mbégte la dal bo xam ne am naa ko vraiment à travers les artistes de Thiès. merci beaucoup Raoul ñu ngi lay remercier bu baax a baax ah, di kontaan ci ni nga jaaree ci plateau bi. donc euh, monsieur Diakhaté moom mooy euh, adjoint au maire euh, Thiès Nord. ñu ngi lay nuyu bu baax euh, monsieur Diakhaté. waaw ah, soxna si ñoo ngi lay ñoo ngi lay fay ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi nuyu également waa cabinet BMC di nuyu waa Thiès gépp ñëpp ñi seetaan ñu leen sant leen gërëm. mais monsieur le maire sañse bi rafet na de. waaw merci beaucoup donc sañse bi moom il fallait que ma def ko parce que bis bee ko laaj parce que tey euh, képp koo xam ne donc da ngay jug di liggéeyal Thiès di jàppale waa Thiès. boo aayee rek dafay laaj donc bu ñuy ñëw ñu def sañse donc indi lu ñu mën ak lu may bu jàpp ci bis bi. en tout cas ñu rafetlu baax ni nga ñëwee daal ñuy wuy si fii nii ci suñu diine bi muy diine boo xam ne collecte de dons la muy la am solo surtout biir Thiès ak période bi ñu nekk nga gis Sénégal ni mu mel xale yi jël mbëkk bi ñiy jël yoonu suuf bi ñëpp rek bëgg dem. jàppale seen i waajur en tout cas euh, muy loo xamante ni initiative bu rafet la ñuy remercier bu baax a baax euh, bu bi nga xamante ni ak staffam euh, ñoo jàpp ci bis bi naka nga mën a loo ñu mën a wax ci loolu monsieur le maire. waaw bon loolu ma ciy wax donc dama koy wax au nom du maire monsieur Birame Souleye Diop képp ku ko xam-xam ni donc c'est quelqu'un boo xam ni donc il entrepreneur moo tax donc képp kuy yëngu ci entrepreneuriat donc moom day sawar donc duwal ci loxoom. lorsqu'il a reçu donc sa lettre d'invitation il n'a pas lésiné donc sur les moyens pour répondre donc à l'appel donc de son frère Bou Kounta Mbaye donc un jeune boo xam ni ñun xam nañ ko bu baax ñu nag moom mooy yarandoo ñu ñu mag ci ay mais xam ni donc c'est un garçon donc très entreprenant ku gëm voilà donc l'initiative initiative bi mu jël donc dañ koy rafetlu loolu lool lool lool parce que dafa mel ni donc ñun la ko defal parmi donc nos domaines de compétences euh, il y a une commission boo xam donc c'est uniquement réservé donc à l'entrepreneuriat donc également aux couches vulnérables donc soxna si sax ngeen gis muy nday yassine Fall donc handicapé bi donc moi, moi gérer donc la cette voilà cette commission là donc c'est une chose bo xamni donc euh, entrepreneuriat dafa don lo xamni donc ñun luñu gëm la parce que pour lutter contre le chômage il faut que donc les jeunes surtout ñu orienter len donc ci ay euh, xétu liguey yo xamni ñom dinañ mëna donc luñu ñu mané dimbali séni wajuri comme comme comme ni nga ko waxee toog ci dëkk bi liggéey ci dëkk bi gëm seen bopp donc mën a avancer je pense que donc di dugg ci gal yi di jéem a dem loolu donc c'est pas la solution on peut réussir donc à partir de là donc ce qui reste rek moy donc jeune yi donc ñu gëm seen bopp autorité yi donc jappalé leen comme genre initiative yi képp ko xamné ne entreprendre nga ko rek ñëpp ñëw taxaw ñu teg seen loxo bu baax baax merci beaucoup monsieur le maire ñu ngi lay remercier bu baax bonne soirée merci. voilà vous pareillement ma. nañ trop di ñaan yàlla fekk ko ay ati ati at te lépp loo xam donc euh, monsieur Boucounda Mbaye moo ngay xaar ci wàllu réussite rek yàlla defal ko maa leen sant di leen gërëm bu baax. merci merci beaucoup.